Dakar is back xeexam njaanjaay comme trap wàcc si pale bi foqati nguur bi président du fi dellu si waat la xoon démb fi tey wax waxaat bi du lu ñu doy lekkati kese bi naxuli béy courant bi la ñu rafet tey lan mooy président yàgg na xeexal tojante bopp li nax ba doole yi kenn gën ñu suñu cas njaanjaay ba tey moom ngay gis nañu dëdd wax politique say élection rek nga leen di gis góor jàpp si góor lu ñu sumb ñu mën fóot gas a sax raxas xol yi jàpp tuur yi def bi sunu wéeru waay ku la xoog nga màtt xuur yi defarul dëkk defarul gox booloo benn defar gox màgg tekkeeg màgg daan bennoo lu ñu sangu daan nañu ànd bay sunu waar dóor amul toog di xaar njaanjaay ba baakeel keel ba ndakaaru njaay buur buñ fi bàyyi lu réew mi liggéey mu jël ko jaay dañoo sonn dañoo taay wàcc seen day sa njëkkaay ba doole bu fi samp taabalam ñu toxal la sànni fële nga dëkkee juba ka daanu ba ker ngay mujjee tële way juri toog duñu xaar Kurang gue mengkau baik Yang buur bi yàlla dëkk bu toll ni njanjaay amuñu hôpital amuñu courant ku fi falu daal di nuuraan dëkk bi lëndëm kuruus bët daal bu tajul duruus malaa ci feebar too faju ay njiitu ñàkk aajo koo si fëgg mu dal di aju jarul wéeru si kenn Sénégal féppay senn réewum bopp sa bopp la koo si wóolu bu faloo fàttale nañ gëm suñu bopp tabax hôpital lijjanti ambulance du mooy nguur gi naxaate bi dafa doy lu dul buur bi jarul ngoni njanjaay jooy nañu maam Maxtaar Baye Seex ak Mamadou Lamine ñoo ngi waa jëf ju moo fi law kenn la ñuy am ku mel ni yow da ngaa jiitu ñoo ngi ñëw yàlla na suuf sedd sa kaw njaay njaay dëkkub jàmm la pël séeréer olof loobee dinaa ko wéy nu ma soobee amul teggi tànk dinaa si kar lu ma si kóobee xeexal njaay ba xëy daayef jaral na ma tayre sama laayef teere ji bat sàll àjjana si dansee sama